xamante ne moom la ñuy waajal. muy les mille deux cent de rock mbalax. lu ñu war a interpeller état la. parce que njëriñ la loo xamante ne. ay doomu Sénégal ñoo ko mën a jëriñoo ëllëg. le vingt neuf février. place cinq cinq lañ koy defee. kon xam nga ne noo def ay galañu cinq cinq géej. kàttanu yàlla dinaa teew. te damay bokk sax ci prise yi. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. da pare à tout moment waaye ñu ngi nuyuwaat rek internetu Kewel Info yi waaye bu la ñu dugal ci àll bi rek ceer maa ngi lay bëgg <laughs> Matar Ndiaye mention spéciale <laughs> parce que tamit liggéey bi nice na di nuyu suñu père bi fi nekkal CNC c'est que li may waxaat rek mooy que ni jotaay bi service na trop wax bu débordé amagu fi lépp a ngi jaar ci cadre sport di fair play loolu nay continuer il faut que ñu xam ne senegal ñoo ko bokk mbër yi yéen yéen ay bëre di fayeeku te lii ci ngeen yaakaar kon bu leen nangu kenn di leen ko yàqal am na ñoo xam ne ruube la ñuy def bu ñu ruubee ñu aj la nga am problème mu bëre loolu bu leen ko nangu écrit caayara ngay nee ñu aj leen ñoom ñëpp te benn nit ko waral loolu de leen ko bàyyi xel ñi ngeen di àndal de leen ak ñoom ñuy calmer di dal parce que boroomum xel soo meree rek sam xel dem na nit da ngay ànd ak sa sago yaa ngi dégg ci ngay mën a jubante doomu aadama wax ko fi mu war a jaar mais ñuy dagg sa xaalis ñu lay aj di aj écrit loolu mbër mu ne na nga ko moytu àndandoo nag baax na waaye bu la naree yóbbee musiba moom nga sippi ko ndànk teg ko nële parce que li tax mooy soppe bu dof wóorul waaye noonu bu muus itam dara wóoru ci nañ ci bàyyi xel kon jeex na vieux Diop kaay parce que faw mu wax non vieux yaay borom restaurant bi vieux Fallou Ndiaye yow la xam kunun moo tax moo di ñu kunun man maa ngi doog a ñëw kunun bi mooy deuxième fois bi te fii laa ñëw kaay rek vieux kaay sànni ci kaddu rek nga wax ñu restaurant bi ak tuuti sa digganteeg Fallou olof ne na feccum liir bu neexee nday jaatee ca mbagg ya waaw waaw Ndeysaan looloo am waa Ndeysaan Lamine nag naan ma batterie kon ñu gaawal ko rek vieux maa ngi lay ziar. delloo la ziar Babacar. vieux Diop sa digganteeg Fallou Ndiaye ba tax tey ñaari yoon a ngi muy tëgg lam di ñu indi fii lu war a relation bi. ci lu gàtt. waaw relation bi moom lu yàgg la sama digganteeg moom lu defay jeune boo xam ne eh, ku ko xam-xam ko ci jàmbaar ci gëm boppam. jàppale ndaw yi nga xam ne moom lay moom lay jàppale mooy jeune lutteurs mhm. looloo tax tamit ñu nit bi ñu ñëwee di ubbi lu mel nii ci gox bu mel nii muy kunun mhm. ñu ne nag euh, nañu ci euh, lëkkaloo ak moom. Euh, waaw jàppalante bu ko defee nga xam ne li nga xam ne moom la ñuy soxla lépp ci visibilité daal ñu jox ko ko. waaw waaw loolu daal restaurant bi moom. mi ngi ci kunun ku ko xam ku ne xam ne ci hygiène la ñuy dox. Mhm. Euh, restaurant bi lépp lay def euh, ci lépp lay def daal. ci gàttal am na hygiène am na lépp dañ koy dañ ko teg ci ay normes yoo xam ne norme hygiène yu normal daal dañ ko ci waaw te dañ gox bu mel nii bu fekkee ne yàlla dafa la boole ñoom. li ci ëpp solo mooy nga jéem a def lépp loo xam ne gis nañ ko ci biti daal dañ suñ sañoon ñun ci dëkk bii ñu dëkk lañ koy def. waaw loolu tax tamit lu ñuy gis ci biti rek dañ koy jéem a indi si fii. waaw ci kunu daal ñun loolu lañ gëm ñun fi ñu nekk daal dañu bëgg lépp lu ñuy yëngu rek ñu indi ko fi am na solo Lamine bëgg sa dëkk ci jaamu yàlla boog dégg naa yonent bi moo ko waxoon sallallahu alayhi wa sallam kon yow am nga jaaraama fi yéeg waaw parce que fi nga dëkk it amoo fenn fu dul foofu man ak yaay laa dëkk moom laa am bu ma sañoon lu baax fa lañ koy yóbbu du noonu la demee Lamine yow looro nga dëkk kii yaraax la dëkk yow foo dëkk serpent Cambérène sorantew ngeen yaraax ak Cambérène tali bi dox seen diggante caatu yaraax maa ngi lay nuyu di la ziar waaw salaamaaleykum waaw ma fekk fi yëpp di leen wax mes respect waaw di wax ne ñun ñëpp ñoo far daal. d' abord di méttiirlu lu xewoon ci làmb. di ci jégalu waa CNG di ci jégalu ñëpp. parce que ñun axul làmb ñu ñëpp benn lañ. dañoo juum rek waa écrit caare dañoo juum rek nañ leen jégal Alioune Seye dafa juum nañ ko jégal xam nga di wax ne làmb ci kanam ñun ñëpp ñoo far wasalaam. déet wasalaam kay du yem foofu ndax serpent ngi nii wala ma dem ci serpent ba pare serpent maa ngi lay bëgge waaw maa lay fay Babacar maa ngi sant yàlla jul si bi sam sam ñaari waajur di nuyu Fallou bu baax a baax di nuyu ñu ma àndal Pa Amdi Euh, Tamsir ak Am maa leen nuyu di nuyu waa sponsor bi restaurant bi. waaw c'est c'est c'est Adja waaw. ñu ngi koy bégee bu baax a baax. sa c'est Adja Degen. di ñaan yàlla moom am bu baax a baax a baax a baax lépp lu mu si lu mu bëgg moo xam suñu borom defal ko fa di bégee ñëpp. ñaata combat nga am arène. man bi mooy sama neuvième combat. ñaata victoire. am naa six. six victoire. ban ne. maay Passane Mbooloo. kan moo lay menacé. Euh, As. As Cissé. As Cissé waaw. Caatu Yarax xam nga ko. ah bu baax baax xam naa ko gay noo ko xamee. ah xam naa ko si làmb ji nii gis ko mu bëree rek. waa doo yokk sa kàddu gi yow mii. ma ne. waaw ah. caatu yaraa xam naa ko. gis naa ko muy bëre. waaw noonu laa ko xamee quoi. seen combat yéen ñaar am na ñoo xam ne ñii dañ ne moo la dàq bëree ña ca des na yaa ko dàq xeex yow boo ciy confirmé. ah waaw accal kon ku nekk na jël bosam rek ñu xool. yaa moom ku dàq bëre. non loolu jarul nekk fii di wax maa dàq bëre wala dàq mu bëree nit nga ëpp ko doole nga dàq bëre taxul nga daan ko. ñu la daan loolu si nit lay nekk. mooy lan waaw su ndimbali suñu borom rek lay àndal. mais di nga wut doole xanaa nag. loolu kenn waranteew ko làmb doole koy def. Ah. waaw maa la ko wax. su ma la xoolee nii gis la nii mu taxaw moom nga yaakaar ne yow mii bu ngeen xeexee dina man naa yomb ci moom wala. day yomb ak du yomb man daal lu leer laa la wax yaa ko wax léegi nee moom day bëre man damay xeex ne ku nekk jël sa cër rek ñu xool. Ah. waaw man li ma mënee dinaa ko wane de. Ah. moom na taxaw xaar ma rek sant ma ko dara soo ko ko wane dina baax ci moom wala. a ah, ba jour ji incha allah yàggatul samedi la. combat bi yàgg na trop. ñuy entraîné xam nga di taxirul daal mais noonu la mënoon demee. waaw ñu ngi bëggee Fallou bu baax a baax di ko ñaanal réussite totale si bis bi lim si séntu yëpp suñu borom dafa ko lu kawe njottam. waajal na taxaw xaar ma. mu taxaw amul leneen. nga defal ko dara. incha allah. dal jàmm. caatu dégg nga sa waaye na nga taxaw xaar ko. bu dee da mën a bëre di nga xam moom xeex bi mu man dina la ci wan li mu man waaw xëy loolu moom bu ñu koy discuter fii maanaam bis bi du ndax li tax ñëw fii moo signé di contrat neexal bisu Fallou Ndiaye dafa gore ndeysaan di ñaanal mbër yëpp nag bu leen yàq bisu Fallou Fallou bu ñu ko gën a gore quoi parce que mi ngi jëmale làmb kanam sponsor bi tamit Adja Dégène fast food bi VIP bi ñu ngi koy gërëm bu baax a baax parce que ngi jàpp ci làmb ji mu ngi jàppale Fallou seen ànd rafet na macha allah waaw Serpent moom suñu naataango suñu adversaire la comme yeneen adversaires yi parce que lamb moom sport la mënu ta weesi sport xam nga nga jàkkaarloo ak mbër naan ko ndax yow mën nga xeex wala mënoo bëre mooy géej gi amul ndox serpent bu mënee xeex boo ko laajee même bu mënul xeex danaa la damaa mën a xeex fii nag signature contrat la bés ba vingt 22 mu rafet incha allahu rabi caatu yaraax ni ñu koy xamee ci géew noonu lañ koy xamee toujours bëla balaa yi ñëw ñu feesal stade bi della ma jàkkaarloo ak serpent ci kàttanu suñuy borom lamb ji du yàgg man du ma yàq bés xaw ma ko du ma yàq bés sama adversaire la nag adversaire du jour la ndax ba may bëre ñeneen ñeneen laa doon lijjanti comme moi moom sama combat il fallait ma lijjanti ko. il fallait waaw. noo koy lijjantee. ni ma koy lijjantee mooy bés ba ma ñëw bañ a ñàkkal fayda bés bi ñëw wane li ma liggéey wane li ma mën ci yar ak ci teggin nag ci yar ak ci teggin parce que lépp discipline moo ko lal ci yar ak teggin moo ko ñaanal wér ndax man su amul wér moom amul wér làmb ji du am kon dañuy ñaan yàlla mbër yi fi toog ñëpp am wér bu ñëwee incha allah ñu bëree bés bi neex ci kàttanu yàlla di gërëm waa yaraax yëpp tamit gis nañu ñuy taxaw caatu yaraax waaw Babacar mooy loolu daal. Ah, yow ba nekk ri nga ne. askan bu yaraax. askan bu yaraax waaw ñaata komba c'est bii mooy sama huitième combat ah. ah, ah. ku lay manager. neuvième waaw. ku lay bëgg Fallou Cheikh Ndoye. bëgg am na solo kon gars yi dégg ngeen ñaari mbëri li ñu waxante mu mel ni ki kon daal ci lu leer wala lu gàtt li fi jot a jaar ñëpp dégg ngeen ko petit komba ba ci grand combat ku nekk wax nga sa soxla wax nga li nga nar a def pour le 22 février li ñuy ñaan yàlla yàlla nañ ko fekkee te tal ko barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfalaat Fallou Ndiaye di ko wax ne ko parce que lii yombul xale nga gëm sa bopp wala boog wóolu sa bopp ñëw di def sa liggéey ba yàlla def tey nga yegg si fii nga yegg si ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla gën a wéral cër yi sàmm la sàmm bépp doomu aadama lépp lu waay di yëngatu rek yàlla nañ ca gis réussite totale barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam encore fois rek mbër lu des mbër daa timis waaw maa ngi nuyu waa ah, Cambérène bu baax a baax a baax a baax bu baax a baax a baax day ma open presse bi waaw waaw man jodi la jodi la incha allah waaw sama koñ laa ko defee internet waaw terrain réseau bi fa laa ko dóoree maa ngi maa maa ngi nuyu waa Touba di nuyu nu ma ñaanal ñëpp ñëpp ñëpp ñu may ñaanal maa ngi nuyu di nuyu Cambérène bu baax a baax sam benn maire suñu borom da ko jël mi mer Ndiaye maa ngi koy ñaan yàlla suñu borom xaaree ko àjjana soppee sëñ Fallou ah, ak suñu chef de quartier koñ Ndiaga Mbaye dafa wàññeeku ñu nga koy ñaanal tamit suñ suuf seet si koom daal di nuyu waa Cambérène ñëpp di leen wax na woon fo rek jàppal ma jàpp amul problème dal jaamu waaw euh, monsieur le maire Yarax ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di woo monsieur le maire et député Moustapha Mbeng ñun doomu Kër Massar lañ doomu Alaaji Paate lañ nag ñu jàppale ci combat bu baax baax nga jëndal ñu ay monsieur le maire Babacar Mbengue borom yaraax ñun ay doomu yaraax lañ ñëpp xam nañ loolu jàppal ci combat bi Fat Diouf Awa Niang euh, Mousli Diakhaté Tata Mami Gueye bàyyi ñu kenn ñu ngi gërëm Islam Ismaïla Diallo aussi tamit ah. ñu ngi gërëm fan sa club Thiatou bu baax di gërëm équipe bi aussi tamit ak suñu coach yi bàyyi ñu kenn ñuy wax ci ruux ci ruux rek maanaam bu jeexee jeex na comme ni ko Boña di waxee may wax ne serpent maanaam comme li mool yi di wax rek parce que ñun ay lébu lañ maanaam xur-xur day yem ci palaasu Mballaaw balaa final tournée di fa am di ko lambal. am na solo waaw. loolu laa koy yóbbante. waa léegi may leen gars yi photo. ñun Cambérène lañ dëkk. nga xam ne ay lëbu waa gars kon daal rendez bi bu leen ko fàtte bu leen ko jaawale le 22 février lay doon ci arène nationale. xamante ne moom la ñuy waajal. muy les 1200 prises de rock mbalax. lu ñu war a interpeller état la. parce que njëriñ la loo xamante ne. ay doomu Sénégal ñoo ko mën a jëriñoo ëllëg. le 29 février. place lañ koy defee. kon xam nga ne noo def ay galañu 55 génn. kàttanu yàlla dinaa teew. te damay bokk sax ci prise yi. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.